waaye daa mel ni tey mënta ñàkk li ko waral it mooy police bi nga xam ne moom lañ rajee dàq ko tey te fekk mu doon sujjóotal wala mu doon sukk di ci sëñ Modou Kara Thierno Mouride Sadikh da ko publier woon doon ci benn direct ma publier waat ko bi ma ko ci saasa la ma sëriñ Dame Mbacke moom sëriñ Mourtada moom Cheikhul Khadim woo ma ci sama téléphone ne ma dama bëgg nga topp tool ma policier bi ba xam numéroom ak nu ñu jokkoog moom moom ma jox ko pàkk fii ci Touba muy ñaari pàkk yoo xam ne benn bu mu ci bu mu bëgg ñu jox ko ci bu fekkee dafa bëgg dëgg si tubaa wala lu mu bëgg ca loola. loola nag muy ab soññee boo xam ne mënu ko ñàkk bañ a def jëmee ci sama bopp ak bépp murit bépp jullit ndax mbir mi ñëpp ñoo ko bokk. li ko waral it mooy sëriñ bi ci boppam muy sëñ Daam Mbàkke moom sëñ Murtada mu Seexul Xadim dafa wax ne képp koo xam ne sëriñ tubaa buñ yëngatoo jëm ci moom loo xam ne ab safaan la war ngaa jóg jàppale ko kon moo tax mu ne na ñëpp jàpp ci lii ngir sëriñ Tuubaa tax mu doon def ginnaaw sëriñ Tuubaa moo tax mu doon def nag ba lii dal ko ca képp ku di jullit ak ku murit ak foo mën a nekk ñi ngi lay woo nga jàpp ci lii jàpp na ci Pape Bouba Diallo ci lii nga xam ne moo ko daal ba insha allahu du ñee kenn jàpp ne du ñee jar na ko it nag maa ngi ci woo ñëpp léegi nag numéro yi nga xam ne képp koo xam na nga cee bëgg a jàpp am naa numéro jot naa Pape Bouba Diallo ba noppi waxtaan nañ waaye numéro yi nga xam ne mooy yi mu yi mu joxe yi ñu joxe te Ceddo Murid defoon ko muy Orange Money ak numéro Wave yëpp danaa ko publier waat ngeen gis ko ci sama face publique face Facebook bu ko defee ku ca man nga jëmee ko foofa foofa ca Cedda Murit mooy ba mu woon na ci ñëpp jëm maa ngi daal képp koo xam ne ab jullit nga ak mën a nekk surtout murit yi ñi nga xam ne ñooy ñooy waa Sëñ Tuubaa lii ñu teg kii ñu teg ko kook Sëñ Tuubaa ñu jublu ci jàpp ci ngir yàlla jëmi Sëñ Tuubaa maa ngi nuyu ñëpp xam naa li ma bëgg a wax mënu ma ko wax li ma ko bëgg a waxee ndax ni mbir mi moo rëy ci man li sëñ daam def